day mel liñ ci gën a jàngate rek dox nañ ci ay jëm yu rëy ak buñ ko nattee ak ci li weesu mu des yoo xam ne rek des na ay benn benn yoo xam ne xëy na fii ak ay bis gi nga xam ne ci lañ war a dépense sa jëm ñi nga xam ne nekkoon ci seen loxo ñu gën cee góorgóorlu fexe balaa booba liñ ci tënk lépp ñu fexe ba mu jeex kon ñu koy rafetlu bu te ñaan rek niñ ko sumbi yàlla dimbali ñu ba engagement yi fi am yëpp ñu defe ko noonu bala ñoo jeexal nag ñu yeesalaat ak cant boo bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko teg ci loxol Aly Ngouille Ndiaye ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci li weesu muy ubbite Massalikul Jinaan mu doon xew-xew bu boo xam ne xatoon na ndax fi ñu ko jàppee diggéey moom màgg gi jege na waaye yitteem taxawaayam ci ndigalul kilifaam def na ci ba defe ko loo xam ne eh, kawe su jur kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla def na ba ñu tàmbali liggéey ba eh, moo jiite woon technique ba kon bu yàlla defee mu dem ba liggéey bi di àggal suñu borom defal ko ndimbal ak tawféex mu nekkaat ministre intérieur war a organiser ndaje mi loolu kon ñaanu suñu borom ñaan la gunóor ko kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaan laat bu baax ci li nga xam ne bokk nañu ko sumb ci ndigalul Cheikh Mahoudou Mountakha moom itam mu di ko def ci ndigalul kilifaam président Macky Sall yàlla suñu borom dimbaluñu ba mboolem engagement yi nga xam ne jëlee ko fi rek mu sàmm ko. ba bu ñu àggee ci daje wu ñu fekk yëpp yem ba sotti mu doon loo xam ne dana doon njëriñul ñëpp benn benn yi nga xam ne nag eh, seetlu naa ko ci wax naa ko moom xam naa dana ko topp ci diggante bi yi nga xam ne gis naa ne fàtte nañ ko yi wax naa ko bu ko defee moom li ci ak wàllam dana ko topp ci ñoom aju ci ñoom bu ko defee luñ ci mën a def ci diggante bi rek ñu def ko balaa agsi ca waxtu woowu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla dimbali ba ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jënd ji alhamdulilah rabbil te am ci ndam lu ëpp luñ ci daan. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.